internet yi ñu bàyyi xel ci sene info point net ak sene info international ñu ngi leen nuyu fas leen defal tënku xibaar tey mercredi di 3 mai 2023 ñu tàmbale kook xibaaru biir réew mi bésu bu tey la ñu jagleel euh, journée mondiale de la liberté de la presse àdduna euh, yëpp nag di màggal moom gi nga xam ne ci taskatu xabaar war nañ ko moom seen bopp ci seenu ko liggéey li ñu nemeeku nag ci àdduna moom mooy daal liberté de la presse dafa sooxe suñu réew Sénégal it euh, li ni mel lañ fi nemmeeku bi la yoon dañoo wàcc ba li nga xam ne moom mooy cent quatrième place ci liberté kon de la presse teur de presse yi ak sax ñeneen kon di ñaawlu wàcc boobu nga xam ne Sénégal wàcc na ko ci dellu gannaaw ci li nga xam ne moom mooy liberté de la presse lu si mel ni ay journalistes yu ñuy tëj kaso euh, wante it ay journalistes yu ñuy bunduxataal ci seenu ko euh, liggéey euh, ci ab ma nag boo xam ne ñii di reporter sans frontière ñoom ñoo ko amal wante nag ca geneen wéet ga am nañu jàpp ne li nga xam ne daal moom mooy fondement bu liberté de la presse maanaam journaliste bi mën di def ay enquête am te it rajo yeeg télé yi di mën di jàllale seeni xibaar ca nam leen neexee ñu ne loolu nag kon mu ngi wéy di am fii ci Sénégal donte nag nag liberté de la presse lu ñu ci war a xoolaat la Babacar Touré di directeur de publication bu Kéwoulo te yoon teg ko loxo moom nag gannaaw bi mu amee ñetteelu retour de parquet ñu ne nag dafa jotoon def ab crise ba sax ñu jotoon ko yóbbu fële ci hôpital euh, principal wante nag ñu ne gannaaw ba ñu saytoo wér gi yaramam kon delluwaat na fa nga xam ne kon fa lañ ko tegee loxo bu ñu sukkandikoo ci awakam di maître Khoureychi Ba agence nationale de l' aviation civile et de la météo météorologie muy waa météo ñi saytu jaww jeeg euh, climat beeg wàllum taw yi ak yi ni mel ñoom nag nee nañ ren boo moywul daal li nga xam ne moom mooy nawet dina teel a tàmbali fi nga xam ne kon moom mooy euh, Sénégal ci nag gox yi nekkee ci nord centre ak lii di ouest. ci ab communiqué nag lañ koo xamle ñu ne nag euh, ba léegi boo mayul dinañ toog ay jamono yoo xam ne ci biir nawet bi ndox du am wante it mu jamono yoo xam ne ndox mi dina bëri lool. xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleeg euh, ca Soudan nga xam ne nag euh, ab guerre fa am ci diggante armée ba ak ay paramilitaire am na nag lu toll ci douze sénégalais yoo xam ne kon rapatrié nañ leen maanaam jot nañ leen jëlee foofu indi leen fii ci ndakaaru ci nag euh, ay vols commerciaux yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ca Caire ñu ne nag démb ci di heures daal yegg si nañ fii fii ci Sénégal ñu ne ñoom nag la ca ëpp ay étudiants lañ. ci Rwanda ab jéeye moo fa am ñu ne nag lu jege téeméeri nit ñoo fa ñàkk seen bakkan ci ay mbënd yoo xam ne kon dafa am ca est bu dëkk ba ñu ne nag euh, fi mu nekk nii sax euh, bilan bi nga xam ne joxe nañu ko te nag muy ab bilangu ndëgëndëku ñu ne toll ci cent neuf personnes fi mu nekk nii daal ñàkk nañ seen bakkan loolu nag lañ joxe tey jii ci àllarba ji buñ sukkandikoo nag ci agence rwandaise de euh, radiodiffusion ñoo joxe bila xibaar xibaaru sport lañ koy jeexalee basketteur international camerounais bii di wuyoo Joel Embiid nekk nag pivot fële ca Philadelphie ca Amérique toll ci vingt-neuf moom nag la ñu tabb meilleur joueur de la saison NBA deux mille vingt-deux deux mille vingt loolu nag mu ngi am démb euh, mardi foofule kon ca états mu muy nekk loo xam ne lu baax la ci moom carrière am wante itam ci li nga xam ne moom mooy basketu Cameroun ak basketu Afrique. ñu jeexale ko daan bi nga xam ne Paris Saint-Germain dañ koo daan seen joueur bii di Lionel Messi ñu ne nag gannaaw ab tukki boo xam ne kon daf koo amal ca Arabie Saoudite te nag euh, lii di këlëbam joxuñ ko ca ndigal moom nag ñu ne dina toog ay fan yu bëri yoo xam ne du football tey it diir boobu yëpp du ca fayeeku xaalis bi nga xam ne kon moom lay euh, fayeeku